Listen. am not solo i am not solo ñu ngi leen di nuyu yéen di leen ñaanal jàmm bu baax di leen ñaanal sutura di leen ñaanal xéwal yu bare bare bare ci barke Seydina Muhammad ñu ngi nuyu monde làmb yëpp Fada mu ngi leen nuyu bu baax di leen jàmm di leen ñaanal sutura di leen yu bare bare bare bare bari ak képp ku nekk ci làmb rek Fada mu ngi leen nuyu bu baax di leen ñaanal sutura ak xéwal yu bari ñu ngi leen nuyu di leen ñaanal sutura yéen ñëpp. ken ziar bu baakha baakha baakha a baax yaakaar naa ne di féliciter promoteur bu mag bi Ibrahima Diop borom Kajoor production ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal sutura di ko ñaanal xew yu bare bare bari yaakaar naa ne nag tey nii di ñu war a wax ci làmb bari na yaakaar naa ne dañ ci war a wax bari na lool di féliciter ki nga xam ne nii tey jii mooy góor ci ndam lu réy li mam di wax encourage Mama Lamine di bu mag yaakaar naa ne Gora Sock liggéey nga lu la mën a may ndam ci làmb liggéey nga lu la suturaal ci làmb liggéey nga loo xam ne ni tey jii bi nga simmi ko Sénégalais yëpp nee nañu ndam li war naa mën a nekk waaye fi may njëkk a taxaw rek mooy Mama Lamine Mama yaakaar naa ne bokk nga ci ñi nga xam ne nii tey jii làmb daneen di bàyyi xel Mama bokk nga ci guddi yi nga xam ne nii tey jii mbër yi làmb amateuru làmb yi di gën a bàyyi xel ci Sénégal bokk nga ci mbër yi nga xam ne nii tey jii képp ku nekk ci làmb rek mu ngi lay bàyyi xel ngay mbër moo xam ne nii tey jii senegal dañu laa fonk ngay mbër moo xam ne nii senegal dañu laa naw ci sa yaru ci sa bëgg làmb ki sa xam fi nga bokk ak ni ngay abordé ci lamb tax na ñu bari dañ la naw mama min waaye mama mama miñ daan gis ci lamb ak mama mi du benn nekkul da ngay ñàkk entraîné nekkul da ngay fooye lamb nekkul ne tey jii mama min dafa dafa dafa bëggul lamb mama dafa am lu la manqué ci lamb lu bare bare bare bare bare Mama la dafa am lu la manqué ci làmb lu bare bare bare bare guddi ñu toll nii gisuñu ñun Mama Lamine mu ñu xamoon Mama Lamine mental bi nekkatu fi Mama Lamine mental bi nekku fi Mama min xel mi nekkatu fi Mama Lamine concentré wutoo cent pour ci sa làmb concentré wu lan la ban problème la ban problème nga am wala cheikh bi la wala da nga ñàkk jàppale ndax gis naa ne gis naa ne man ku xool ay ma combat wu ci ginnaaw boo gisee combat wu Mama Lamine bii di nga xam ne Mama Lamine bi nga daan gis ci làmb ak Mama Lamine bii du benn Mama Lamine il faut nga ut ñëw toog waxtaan ak ñoom te il faut nga ut ñoo toog nga waxtaan ak ñoom waaw ndax yaakaar naa ne ki la daan war na laa mën a daan ki la daan war na laa mën a daan jël bu ne ci àdduna ndax ki la daan daan na ku bokkut ak yow daan na nga xam ne nii ay mbir la supérieur mais ñun gisutuñu Mama Lamine mi ñu xamoon ci làmb bu fekkee ne problème bi dafa dañugul sa bopp ba léegi toogal nga waxtaan ak ay kilifa toogal nga waxtaan ak ay borom xam-xam wala walla wala nga def ay solution pour nga génn senegal nu gën a gaawee Mama il faut nga génn Sénégal nu gën a gaawee pour sa mental mën a tegu ndax man ni ma la gisee ni ma la gisee gistuma Mama Lamine ma xamoon gistuma ko wax dëgg yàlla li tax ma ne gistuma Mama Lamine ma xamoon loolu leer la ci man ndax topp naa la bi ngay dugg si ci làmb ji ba ci signature ba ba ci lépp maa ngi lay bàyyi xel waaw mais damay gis ne jour Mama Lamine ma xamoon mantal bi dafa des trop trop trop te àdduna yàlla bindul ko dul am problème Mama mais bo amé yenn problème diko di dund génné ko nga waxtan ci ñi nga xamné ñoo la xam-xam ñi nga xamné ni ñoo lu supérieur ci aduna lu bari dañ la ci mëna dimbalé lu bari bari bari bari bari waaw ndax problème yu bari ñak waxtan bu ko téyee mën na la gañ ndax mama lamine bima xam man ci làmb mama lamine bima xam ci nek gaynde mama lamine bima xam ci nek der mama lamine bima xam ci ci bëgg bëss gaynde mama lamine tay ñëwut Mama Lamine ñëwul te da nga bokk ci làmb nag Sénégal gépp ñu ngi lay bàyyi xel boo jugee àdduna jóg boo jógee tarkindaay jóg boo jugee ñëpp ay jóg ndax yow bokk nga ci mbër yi nga xam ne nii tey jii say say supporters sans frontière lañu say supporters sans frontière lañu waaye gars yi fi may ñëwaat rek mooy di féliciter góor Sock ci ndam lu rëy li mu am Gora làmb day toll foo xam ne nii mbër moo koy jël boppam ci loxoom te da bokk ci làmb te gis nga bëri na la doon xañ sa làmb góor soog yaa ko doon teg sa bopp góor a bëri na lu tax nga daan ñàkk say combat ci yow la nekkoon ndax yaakaar naa ne gis nga làmb góor a mu ngi duggee ci làmb ji tey ci biir géew bi la góor a duggee ci làmb ji mais góor a bi muy tuus sax dafa nekk ci pression te pression boobu nekk ci yow góor a da koy fexe nga dindi. dangay jël pression lu bari ci làmb pression danga koy jël bu baree baree baree bari ba bi ngay tuus bi ngay tuus Franc mu ngi rek raadire tuus mi di ko jéem a defaraan mais yow boobu sa mental nekku fii loolu nag góor a il faut nga xam ne fi nga jëm ci làmb dootoo bëri ci combat bu yomb nga jëm ci làmb dootoo bëri combat bu te pression bi ngay jël ci làmb góor dafa bari pression bi ngay jël ci làmb dafa bari trop mais bi ngay tuus nekk koo ci làmb ji bi bi ngay tuus yaa ngi tremble yaa ngi def nii te loolu du yoon ndaanaan bu mel ni yow ci làmb ak nii nga toll amul lu góor di lekk ci làmb te góor sokoro ko lekk amul lu góor di lekk ci làmb te góor sokoro koo lekk ndax jom jaa ngi fi fit baa ngi fi mën a bëre baa ngi fi daan nga ndaanaan yi te danga mën a am li jeexal làmb kon bu làmb tollee foofu da ngay jël say responsabilité ci làmb daan nga Mama Lamine jël lu bu ko góor mës sa daan def nga ma Lamine lu ko góor mës sa def mais fi nga jëm ci làmb bis boo noppee doo fa àgg nii ngay bëri ni continuer ko tey wax ci làmb tey joxoñ adversaire yi nga bëgg bëreel ndax làmb kenn moom ko làmb kenn kenn kenn kenn moomu ko làmb kenn moom ko góor waaye boo entraîné rey sa bopp làmb dalay jaral dara boo entraîné rek sa bopp làmb dalay jaral dara mais tey daan nga Mama Lamine mais dangaa bëreewaale fut yu baree bare bari yoo xam ne ci biir làmb man topp naa la gis naa ko waaw làmb góor bu ñëwatee te ko sa catuwee tey da ñëw sóoraale trop trop trop bi ñuy présenté drapeau bi boobu sam réglé ko waaw réglé ko te yooyu lu war a dëñ la ndax combat yi nga jëm góor a du combat yu yomb combat yi ngay bëri ji du combat yomb combat yi nga xam ne ni moom nga soxla du combat yu yomb ay combat yi combat njarndéem yu am solo nga soxla sànq da nga tudd benn adversaire boo xam ne mooy Moussa Ndoye koo war a bëril la waa koo war a bëril la te làmb foofu la toll il faut gars yi ñu mayante sens ngeen bëri seen biir mooy tonto wente beeg diw du ma moom ak yooyu yëpp amatul njëriñ day yàq làmb waaw saison bi nag ni mu tijjee dafa am solo làmb ci coow li bari na Talfa wane war na boppam ah Boy Niang wane war na boppam bu Géejawaay ah ah Ramdaan ram li nga mën a Ramdaan kii nu mu tuddati waay boo bébé Modou Lo wane na boppam ah Kaw Gourné wane na boppam loolu la ñu soxla ci làmb loolu lañu ñu soxla ci làmb waaye mama lamin li may ñëwaat ak yow rek mooy mama gis nga làmb àdduna da ngay toll ay gudd yoo xam ne nii day day day jekk ci kanamu sénégalais yi ne àdduna bi dafa leer ci mama lamin waaye yow automatiquement yow boo wéetee mama lamin àdduna dafa lëndëm ci yow gis nga loolu bu amee mama lamin da ngay dem foo xam ne nii kenn xamewu la fa wala boo fa demee di nga wéet lool nga mën a jotaat bopp man ci SFU mama lamin lu toogaat Sénégal lu tollu deux mois trois mois bépp possibilité bu ñu mën a def pour Mama Lamine senegal Sénégal nañ ko def ndax benn li ko dal dafa métti Mama Lamine nga am nga daan ànd ak sa seex sa seex bi mën ci yow lu kenn mënu ci yow seex boobu tey jii yàlla nattu ko mu nekk ci loxo yoon day métti lool ci yow gars yi Mama Lamine bu musaana am combat seex bi dana ko entraîné rek laa la sant. entraîné rek lañ kanam sant ci combat am léegi ñu dem ba la Lamine di doxal mo boppam mystique di bokkoo mu entrainement nekk ci ay problème seexam xam téye ko nga waree sa famille lu métti lay doon kon tey jii ak lépp lu métti métti mama toogaatal nga xool ay nit yoo xam ne ñoo la tane ci xam ci mooy nga wax leen li nekk ci yow te xam naa ne noppi gi nga noppi nii ak jooy yi ngay jooy nii en général soo waxee rek jooy dégg naa bi muy génn këram tay vidéo bi sa envoyé nañ ma ko ndax nee de xel mi dafa dem ci seex bi mu dóor loxoom ci ba loxo bi dagg muy loxo xam ne nii tamit ndeysaan lu ñu lu loo ne ñu ngi ko ci masaw bu baax a baax baax baax baax waaw ñu ngi la ciy masaw bu baax mama waaw waaye l'essentiel liñ lay wax liñ lay wax mooy danga bokk ci làmb Gora Sock mi la daan daan na ku ne ci làmb waaye mama la mi da bokk ci làmb amul découragé amul découragé jege woo sax fooy découragé waaw jarul ngay découragé sa diggante double moteur bi fexeel noo ci amee contrat ak Ibrahima Diop mi nga xam ne mooy promoteur bi te yaakaar naa ne seq ngeen contrat yoo xam ne nii koo seqal ñaari combat war na laa mën a jox contrat boo tukkee nga dem tukki defaraat sa mental pour mën a dellusiwaat ndax combat bi nga jëm bi nga jóge métti na lool mais bi nga jëm moo koy gën a métti ndax double moteur te bi ngay bëri si mu ngi ñëw toog di la xool. kon tay gi lolou lu jara baye xel la te yow reference nga ci lamb mbeur mu ñepp di baye xel nga Mama Lamine do do do mbër moo xam ne nii da ngay foye lamb waye tay gi liñ ñu war ci lamb tamit bari na yaakar na ne bala ma ñew ci digënté Mama Lamine góor sok, ni ñu abordé combat beeg yoyu bala ma ci ñew barki dembu dama and ak euh, wa CNG yi ak euh, promoteur yi bare bare bare ñu and ak ñom ci walu lamb mais man mais man man dama yaakar ne. dama yaakaar ne euh, nitu làmb yi nañu wax ak ñi nga xam ne nii tey jii ñoom la ñu bëgg a jox xaalis bii ñu war a tëggalee làmb gars yi man dama dem mais barki Serigne Babacar Sy dama dus ndekete affaire yi politique kese la politique kese na ma gis ñu fa dem di sant yow la ñu àndal promoteurs yi di waxee noo xam ne nii ñoom xalaatuñ sax ne liñ leen di jox lii ñu leen di jox ay mbeur tax ñu jox leen ko bu dul woon mbeur billahi du leen ko jox ñu dem fa di samba mbayaan di sant ah di di wax di yoy lay wër hmm, fo nekku ñu fa ah ay ki wu camp man damay dem ba ciag dama na ndax ñun promoteur yi la li ñu leen di jox te ñu yag teug lamb men affaire bi def leen a jomb lu jara baye xala te li ma leen wax ni bu ngeen ci jotee bu ngeen ci jotee dina am lu ma jaaxal lool waaw te nag bëgg